sa Sénat ak li nga xam ne moo di CENI commission électorale indépendante nationale bokk na ci ndogal yi nga xam ne président Bassirou Diomaye fay fas yéene na ko jël ngir indi ay coppite ci système électoral bu Sénégal naam xalaat bi rafet na waaye dafa laaj ab taxaw seetlu bu am solo bu ñu sukkandikoo ci Babacar Fall bokk ci société la Sénat ak CENI maanaam coow loolu yàgg na depuis maa ngi wax ne avant ñuy taxawal Sénat waxtaanoon nañ ci est ce que dañuy def CENI wala est ce que dañuy def Sénat mais nag boo xam ne tey jógaat na président Diomaye indi na ko il faut que ñu waxtaan si ba xool lan moo gëm lan moo gën ci Sénégal vraiment ñu mën ko yooyu yëpp ay xalaat la yoo xam ne nii yaakaar naa ne concertation bi war na ci mën a wax. ci loolu sax secretaire général bu GRADEC àddu woon na ci mbir mi ci téere bi mu bindoon ci histoire politique bu Sénégal Babacar Fall di ci joxe ay piste de réflexion ci li nga xam ne moo soxal Sénat. bon ñun suñu Sénat Sénat bi ñu am baax na maintenant il faut ñu set naka lañ koy gën a dooleele. je pense que li fi nekk nii baax na problème bi bu ko xënoon gënoon yaatal. gën a yokk taxawaayam yokk ay moyens xëy na mën na vraiment donc def liggéey bu gën a mucc ayib nga xam ne du soxla ñuy dem ci ci CENI. ci initiative indi ay coppite ci système électoral bi bépp sénégalais boo xam ni am nga carte nationale d'identité dañ lay bind ci sas ci fichier électoral bi ci loolu tamit am na paramètres yu bëri yoo xam ne jar na sóoraale. nga am fichier boo xam ne tey ñun nekk nañu euh, fukki millions ak juróom-ñett ci doomi aadama. bu fekkee dañu def noonu mën nañu am fichier boo xam ne day dem ba ci presque juróom-ñeenti euh, million wala fukki million ensuite nit ki bu fekkee da nga ko basculer nga dugal ko dugal carte d'identité il faut que aussi nga domicilier ko ci benn lieu de vote ak benn bureau de vote maintenant lool donc techniquement mën na nekk mais il faut que loolu aussi ñu xool ko maanaam faisabilité bi. président Bassirou Diomaye Faye fësal na bëgg ma ngir remplacer Sénat ak commission électorale nationale indépendante. dina tax ñu indi ay coppite ci système électoral bi rax ci dolli organe bi nga xam ni mooy saytu élection yi dina gën a am indépendance